yàlla defuloo kenn luy te way waree rëy yaa fi gën yaa gënit ku dul yow xad xiila ii walaay yaskay sunu ruu yi yaa tax yonen am fa ii walaay yaskay amaan si ak suuf فحقا قيل هي والله يسكي ak léenan a dënno ak melxet ni ray ray a taw bu ceeboo ki ceppal am ñax saaxal gàncax gu ñuy bay su dugub ji ci gerte am xaalisit ci say may kulloo xaqun li hada jinneeg malaayka ñee ñépp rey na kenn du ko wax ku dul yow kañuy way su dee ak kuut bu maamuy yow la ñuy yaakaar ci ay may bu dawla dool ko nag yow yonan ame loola moo tax yaa yayoo way rasulallah waaw ne muftaxirun damay dëggal bi lay way nee suñu borom tabaraka wa taala bind ci leeru soppeem ba di sunub yonent yal nañ yàlla def ñuy sopp suñuy soppeem mu bind ca leer ga benn jawhar digal jawhar ba nag nekkoon ko na nga xar mu xar ñaari xar mu xool xarit bu jëkk ba xool ko bëy bëtub tëy mu tiit ba nekkum ndox muy daw di wéy nee nañu mooy ndoxu géej gi ak ndexu dex yi <clears throat> fudd boobu muy fudd ak yëngu beeg dal bi yépp fi ko gis dafa nekk di sabbal boromam moom géej loo gis mu yëngu ma ngay sabbal boromam walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kaana haliman ghafura wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum amul lu yàlla bind lu dul mi ngi sabbal boromam waaye daal fekk na ñun ñu ko dégg ñàkkul nag ñu ko yàlla xamal ci lenn ciy jaamam yoo xam ne yi ñoom xam nañu waaye lépp loo gis ma ngay sabbal boromam ak di ko jàmm ah nee na mu xool genn wàll ga ca des mu xool ko bëtub cofeel sama borom tabaraka wa taala bind ca ñeenti yëf bind ca arash bind ca kursiyu bind ca lawxul mahfuz bind ca xalima ga xool xalima ga nag bëtub tëy ak tiit xalima ga tiit ba ne tàcc xar ngir màggug suñu borom tabaraka wa taala ak màggal yàlla mun digal xalima ga ne ko na nga bind mu ne ko yow sama borom tabaraka wa taala lan lay bind mu ne ko bindal ne laa ilaha déet benn buur ba yeyoo jaamu te jaamu ga war ca ka koy def te du dolli yàlla dara te di wàññi ka nga xam ne kii moo ko bañ illa ana wahdi lu dul man yàlla mii la sharika lii fii mulki aw ma ku ba bakkaalil sama gi aw ma ndey aw ma baay aw ma kenn du maam du wajjan du leneen moo tax gaa ñi ne muhammad sallallahu alayhi wa sallam sif lana rabbaka sa borom bi nga xam ne yaa ngi ñuy woo jëme ci dañu bëgg nga xamal nu amin xashabin aw xadiidin aw xajarin ndax ci weñ la ndaxte yàlla ji weñ la wala bant la wala doj la sama borom jox ko tontu ne ko waxal ne qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuan ahad qul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci tontu ñooñu la ne leen huwa luy mbir tey mbir allahu samadu allahu yàlla mooy buur bi nga xam ne dalewul fenn yemul fenn te mooy samat samat firee nañ ko ne mooy ko amul biir samat firee nañ ko ne ku dul wuti kenn di sakku ndimbal ci moom te yow ñëpp a ngi lay wutsi di sakku ndimbal te la nga leen di defal waru la yërmandee tax akuk baax te ku dikkul ci yow li mu bëgg du ko am bari na lool ay piriwaay loolu ci gën gàtt lam yalit amul doom walam yuulat amul ndey ak baay walam yakun lahu kufuwan ahad niruwul kenn kenn niruwul diwa niroog diw taxawaay diwa niroog diwub xeesaay ñoo niroo ñaw mbubb ñoo nirooy bët ñoo tolloo loolu sama borom tabaraka wa taala subhanahu an dalika kullihi ah ba mu ko defee mu ne ko waaw léegi nag bindal ne muhammad moomu le sama jaama sama bi sama ndawa naka la ko def xalima ga rot sujoot di jooy ba am téeméeri at am na ñu ne téeméeri junni at yëkkati boppam ne ko yow sama borom tabaraka wa taala yow sama sang man xam naa ne kenn lu buur ku yow waaye waaye ji tudd muhammad nga boole sa tur turam lëkkale ko kooku kana sama borom ne ko xalima gi nanga nga tegginu maa ngi gën ci sama tedd nga ak sama màgg nga su dul Muhammad moomu ngay laaj du ma bind aras du ma bind kursiyu du ma bind asamaan du ma bind suuf du ma bind àjjanna du bind safara du ma bind guddi du bind bëccëg du ma bind dara lima bind yépp na ma ko ko terale moom moom nga may laaj sallallahu ta xalima ga man di te jàpp ko ngir neexitu turu muhammad sallallahu alayhi wa sallam sama borom yekkewal ko maanaam digal ko ne ko nuyool muhammad nuyul muhammad moomule naka la ko def xalima ga dal di ne assalaamu alayka ya muhammad sama borom dellool ko nuyoo ne ko alayka assalaamu ayuha alqalam tax ñu ne fa lihaada saara salaamu sunnatan bu jëkkam maanaam jëkka nuyoo sunna la delloo gi farata la ndax nuyoo ba sama borom tabaraka wa taala moo tontu sama borom dellu wax xalima nga digal ko ne ko na nga bind ne xalima nga tiit lox ngir tiit ba am junni at sama borom ne ko bindal li nga xam ne namm naa ak nekkam ba ba bés penc ba xalima nga di bind ba sama borom mu sob sama borom mu bind ne doomi aadama yi nga xam ne aadama moo leen jur wala koo xam ne kii dafa bàyyi koo ci ñu aadama jur képp koo xam ne ki topp na yàlla yàlla dana la dugal ajjanna képp koo xam ne mooy nga ko suñu borom tabaraka wa taala dana la dugal safara bindu loolu ci xeetu sayidina ibrahim alayhimu salaatu wassalaam ak xeetu yonti yàlla isa ak yo xeetu yonti yàlla muusa ba ak su ci ñun ñi nga xam ne ñooy ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallama xalima ga bind ne képp koo xam ne ci xeetu muhammad mooy nga yàlla yàlla dana la dugal safara soo toppee yàlla mu dugal la ajjanna ba nga xamee ne def na loolu am lu woote ndeke sama borom tabaraka wa taala moo woo xalima ga wax ko ne ko na nga tegginu xalima ga dellu tiit na taj ci xar ca la ñu jóge képp koo xam ne ki yaa ngi set xalima pour bëgg ci bind il faut nga xar ko il faut nga dog bopp ba mu ne ko bindal ne ummatun mudribatun wa rabbun gafuur xeet lañu woo xam ne seeni bakkaar bari na waaye man itam buur laa boo xam ne bi lu ñu def ci bakkaar danaa leen ko diigal ci sama géej gi yërmande gi mu set wecc yal na yàlla jéggal jéggal leen lillahi nuurun yakunu allahu mudiahu abal wara tahiran fi tahiri chiyami wa kaana chiihu wasiya al asli muntaqilan min xiirati lkarami lilxiirati lkarami xatta intaha bi chumuusi nuuru محتقرا لقادة العرب فهر الجلة النظم Seydi El Hadji Malick nee na kaawteef ak leer goo xam ne sama borom tabaraka suñu borom tabaraka wa taala mooy ki ko dénkaane te ki mu ko dénkoon it mooy ki nga xam ne mooy bàyyi bindeef yi muy maam aadama wa kaana chiidu wasiya al asli muntaqilan min xiiratin karam min min xiiratil karami leer ga ba nga xamee ne na ci suñu maam aadama ba dem ci xawwa mi nga xam ni moo doon soxnaam ba mu ca bàyyikoo ca chiisa la dem maam xawwa nee na ñu ëmb na ñaar fukki biir bu ci nekk dafa daan nekk seex ba mu des bi nga xamee ni mooy bu chiisa bi sama borom ne chiisa rek laa ciy def ndax mi nga amee leeru muhammad sallallahu alayhi wa sallam doy na ko ñaareel ndax leer gi dara xajul moom ci feneen moo tax mu ëmb siise jur ko moom rek bi sababi naka leeru sallallahu taala alayhi wa sallam mi ngi ci moom xata ntaha ba daytalu wa yemi an nuuru leer ga muxtaqiran mbir moom nekkam di aji xeet bi sumuusi mu jëm fan li qaadatil urbi jëm ci sangi arab fihar giir fihar aljillati ña di way mag an nuhumi ña kenu وغير شيف فما وغير شيف فما تأتيه منفردا حواء تكريم نور غير مزدحم mu ngoog mooy loolu ñu waxoon ne siifa moom rek la maam Hawa ëmb ndax leeru sallallahu taala alayhi wa sallam gi nekkoon ci moom وارزم ضريح محمد ولعاله تنفوس إن تلزم محمدي لغرض نوائج لم يصلها إلا الصلاة على النبي محمد وعلى معنى محمد تسبي حبا فما أثنى مقام محمد لغرض نوائج لم يصلها إلا الصلاة على النبي محمد ونلتمك محمد قلب الشديد لا تجو في قلب بذكر محمد يا جميل روائج النجمات إلا الصلاة على النبي محمد واسر لي وجه محمد غير العزاء من البصائر قط وجه محمد يا جميل روائج النجمات إلا الصلاة على النبي محمد واخلص لآل محمد حبا ترى عين الهدى في حب آل محمد لا من نبائج لم يظهر إلا الصلاة على النبي محمد وذن موت محمد وبعده من ذا الذي لم يبكي موت محمد العالمين لوائد لم يسلها إلا الصلاة على النبي محمد وحسن لموت محمد وفاته من ذا الذي لم يبك موت محمد للعالمين العالم لم يطلع إلا الصلاة على النبي محمد إني قديم محمد وعبيده حسبي بأن أرى قديم محمد للعالمين العالم لم يطلع إلا الصلاة على النبي محمد ابني لأم محمد يا ربنا لم نخش من هول بحب محمد لعالمين نوائي لم يرضها إلا الصلاة على النبي محمد أسلمت وجهي للذي فطر السماء وأتى الخلا والأرض رب محمد للعالمين نوائي لم يرضها إلا الصلاة على النبي محمد أسلمت وجهي للذي فطر السماء وأتى الهلا والأرض رب محمد إلى ذريك فوائد لم يبلغها إلا الصلاة على النبي محمد أسلمت وجهي للذي فطر السماء وأتى الهلا والأرض رب محمد إلى ذريك فوائد لم يبلغها أسلمت وجهي للذي فطر السماء وأتى الهلا والأرض رب محمد سواد بين نوائي لم يصلها إلا الصلاة على النبي محمد ووقفت عند الباب وقفة خاضع متواصلا مرتفعا بمحمد للعاصمين الأوائل

بحسب محمد للآبقين لوائد لم يرفع إلا طلعت على نبي محمد ووقفت عند الباب واتفقت متوكلا مستاسعا بمحمد للآبقين لوائد لم يرفع إلا طلعت على نبي كثير ذنب مالي حيلة قدمت بين يدي مدح محمد للعالمين الغائب لم يرفع يرجو من المولى بجاه محمد يرجو من المولى بجاه محمد يرجو من المولى بجاه محمد يرجو من المولى يرجو من المولى بجاه محمد يرجو من المولى بجاه محمد بجاه محمد يرجو من المولى بجاه محمد يرجو من المولى بجاه محمد صلى عليه الله ما رحمت يكن وصيا صحائف الانزلاء محمد يرجو من المولى بجاه محمد يرجو من المولى بجاه محمد والآن والبر والسحاب من أزواجه ومن انقى يوما لآل محمد يرجو من المولى بجاه محمد يرجو من المولى بجاه محمد كل من كان خافيه يهدي مبدا كبدا على خلاف أخطانا من سوي الخود ما فقدارت الأرض ولا أشجار أملا فما يلأم أم البال والرابل فيه يهدي مبرد كبدا على خلاف الأرض كان من ذوي الخود مدنا ولا نذاب الرحمن أم لسكون ذلك الأم إكرام المؤتمر يهدي مبردا كبدا في الأرض كان من ذوي الخلود مولى جبل عدا ثم باول والبعد بي من القاهرة رغم غدار بالغرب أتى بصيرا مخبرا جل مكي علم جم بصفات يسلك ما بأمر فلاك وكفاك موسى لم يصل متوسلا بك في القيامة مهتم بإماك والأنبياء وكل خلق في الورى ورسل والأملاك كسلواك لك معجزات عاجزت كل الورى وفضائل جلت خليصة وكويك مغازيه يا بدي مبردا كبدا على خلاف الأرض سانا من ذوي الخلود يا إنما بظاهر ما سالت بل يا أتنا هذا وإذا للدعاء هذه يهدي مبردا كبدا لنا في الأرض لنا من ذوي الخدود من دك ثاني أو المختار بستمك مدي وأقصدني سام الفراق بمرتدي وحبي في في مسجد تاكدي صارت له يسري وبمحمدي كنت يا محمد وسالك أهلا ماضي يتوسط له ووجه له مسرف كان ويا بعد معتب زل من نور الأمام وما فيه يدي مبردا كبدا على خلاف بلد بي بحر الشريعة ختما nga xam ne amal basit na taal baaba puulaan baladun bi shamsun bu wati ashraxat دامت ولم تر في الوجود بلد بلا نبي bu ñëwee ci bunt bi bàyyi leen ko sëriñ bee ko woo في مكة جيلالي ولا ينتهى المد ما كان فيهم قدر مجهول سار نبي محمد قصدا واكرم بالمدينة خيرا بكل صحب لم نسمع لهم بجميع صحب الأنبياء المرسلين واجل فهد الأسافل لم ينقص فضله بل زادهم بين الورى ربنا ثابتا ثابتا على خلاف كان من ذوي الخلود لما أتى آل سياتي سأل أي جماعة يانا فما لم الجلوب فما خافيه يهدي موردا كبدا على خلاف سانا من ذوي الخدوم اللهم صل وسلم عليه وقفت دين يا علم الهدى شيخ عمر نجور اي ويو سنجي وربت دين شيخ عمر نجور بيتي كلمه بايدن سنجي كو ينن عادا كان من خليل جاري ترى فقد المعداد لفاك في يوم بدر من أتتك ملائك من عند ربك قاتل داداك ويولد جاك يوم فتك مكة ونسر في الأصاب خذافاك هود ويونس من باك تجملا وجمال يوسف من ضياء سناك وساء متى دعاني ساء سيدات الزمان تسميت أرمانا كان آلة من nag bokk day. nag bokk day. ca dëgg-dëgg. ca dëgg-dëgg. kenn xamu ko. kenn xamu ko. kudul yàlla. kudul yàlla. doy na ko. doy na ko moom bokk. moom bokk ak tedd nga. ak tedd nga li yàlla wax. li li yàlla wax. ci xaqam. ci xaqam yàlla nee na. yàlla na ngeen ma ragal. na ngeen ma ragal. ak bokk. ak bokk di ngeen xam ne. di ngeen lu ngeen di laaj. ngeen di laaj. ca ngeen koy laajal. koy laajal ak geño. ak geño defal ma nangam. defal ma ak meen. akuk ma ma nangam akuk bokk. akuk defal ma nangam. defal ma nangam nee na ñu bokk nee nañu bopp ba ko sama borom bindee ba ko sunu borom bindee te nam mu ko wàcce nam mu ko wàcce dafa bañ ne bopp dafa bañ wala nee nañu mu jooy wala nee ñu jooy bu yàlla ne ko looy jooy. yàlla ne ko lan ngay jooy. mu ne ko ragal ku ma dox. mu ne ko damaa ragal rek ku ma dox. mu ne ko. mu ne ko géñ naa ci sama tedd nga. ci sama tedd nga. man yàlla. man yàlla ne képp ku la dox. ku la jokk ku la jokk. danaa ko jox danaa ko jox. ku la dox ku la dox. danaa dox danaa dox. sama digganteeg moom ba bés penc. ndax kontaan nga. ndax kontaan nga. mu ne ko kontaan naa. loolu doy na ma. loolu doy na ma mu ne ko wàccal. mu ne yàlla ne ko wàccal nag. bokk ak bokk door a wàcc. yeneen bi ne nee na yonent bi. am nay am nay xur. am nay xur. ak i kamb. ak i kamb. ak i bënn. ak i bënn. yu nekk. yu nekk ci biir safara. ci biir safara. yoo xam ne. yoo xam ne kenn du ca dem. kenn du ca dem. lu dul kuy dogu bokk ak kuy may sa ñaari wajur. ak kuy may sa ñaari wajur. yal nañ ci yàlla musal. yooyu kamb du xur ci ñooñu ñaar rek lañ ko xam. yal nañ ci yàlla musal musal. lépp loo xam ne suñu borom tabaaraka wa taala digal nañu ko. mais lépp loo xam ne lii. sunu borom tabaaraka wa taala digal nanu ko. tere nañu safaan ba. tere nañu safaan ba. te biral na ko. te biral na ko. biral goo xam. biral goo xam ne. kenn réeréetu. kenn réeréetu. ni ki wuruj. ni ki wuruj. ak noono. ak noono. ak dogonte. ak dogonte. ak tooñ. ak tooñ. ak bokkaale. ak bokkaale. ak lépp loo xam ne. lépp loo xam ne. niru na loolu. niru na loolu. ci li yiir jaam. ci li yiir jaam. ak di ko dog. ak di ko dog. ba du àgg ca yàlla. àgg ca yàlla. wala mu àgg. wala mu àgg. te ngërëmal yàlla. te ngërëmal yàlla. lu màgg la. lu màgg la. yéen mbokk yi. yéen mbokk yi. maa ngi leen di wattandikuloo nee mi ngi leen di wattandikuloo. tooñ tooñ bu leen tooñante. nee bu leen tooñante. sama borom. nee sunu borom. tooñ sax. tooñ sax. xaramal na ko ci boppam xaramal na ko ci boppam. def na koy. def na koy muy lu ñu xaramal muy lu ñu xaramal. ci suñu diggante na ngeen topp yàlla. yàlla yàlla topp leen seen yonent topp leen seen ngeen topp seen i kilifa te ngeen topp seen yi nga xam ne yi nga xam ne ñoom la yàlla ñoom la yàlla méngale seen i mbir méngale seen i mbir ci wàllu diine wàllu diine wàllu adduna wàllu adduna te ngeen sàmmonteeg sàmmonteeg li nga xam ne li nga xam moo nekk seen diggante moo nekk seen diggante ci xaq ci bu leen ko sànq bu leen ko sànq sànq ko sànq ko perte gu rëy la perte gu rëy la yàlla nañ na ngeen ragal yàlla na ngeen ragal yàlla te sellal na ngeen sellal seenu bopp seenu bopp ngeen xam ne. ngeen xam. defaru bokk. defaru bopp li ci nekk ci ngëneel li ci nekk kenn mënu ko takk kenn mënu ko na rek doy na rek nekk Seydina Jibril Seydina Jibril ngee ji woon ji woon ngir nekk ngir nekk doomu aadama aadama ngir ngir la nekk la ca nekk ci yool yu rëy yool yu rëy ci yàlla ci yàlla bokk na ca bokk na ca defaru bokk defaru bokk bokk na ca ne bokk na ca julli ci mbooloo julli ci mbooloo bokk na ca bokk na ca nandal ku mar nandal bokk na ci bokk na ca leel jirim leel jirim bokk na ca bokk na bokk na ca. gunge ku dee ku dee ba ca sëkkil. yii daal si naa jiw ma si ngéej nekk doomu ci def leen. ngeen jokk seenu bokk. te nee na ngeen jokk seenu bokk. na ngeen nekk yéen jaami yàlla yi di mbokk. na ngeen nekk yéen jaami yàlla yi di mbokk. na ngeen muñ te ngeen di muñalante. na ngeen muñ. tey muñalante te ngeen xamit ne sama borom tabaraka wa taala na jullit yi ay bokk lañu tey ngeen xam nee na ay bokk lañu ah liimaan nag nee na liimaan nag defe naa moom la wax ku gëm moom la ñuy tudde croyant xaw ma ne liimaan ku gëm moom la tudde croyant croyant waaye am na ñoo xam ne ñii ñu koy bëgg a jaxase waaye am na ñoo xam ne ñii rek ñu koy bëgg a jaxase. waaye dañuy wax ci seen bànneexu bopp rek. waaye ne dañoo wax ci seen bànneexu bopp rek. waaye ki wax wax ñu di ko nettali. waaye ki wax wax ji ñu ko bëgg tëral feneen. ñoo ko bëgg ñoo ko bëgg a tëral feneen. waaye xam bu wér ni. waaye wax wax ji. ki wax wax ji fa ñu ko bëgg a tëral fa ñu ko bëgg a tëral. tëraluñ dañu nekk ci jamono nag boo xam ne. dañoo nekk rek ci jamono boo xam ni permidi yaana. permidi yaana. lu neex waay mu wax. lu neex waay mu wax. ndax kenn ku mu ci doon. ndax kenn ku mu ci doon. moo xam ci diine ji la. moo xam ci diine ji la. wala ci pom yi la. wala ci pom doon télé wedd yàlla la. yàlla la. am na ñu la wër. am na ñu la wër. gëm la. la. rafetalal la. rafetalal la. la nga nekk la nga waaye kay yàlla wax na melaw jullit na muy mel. waaye nee yàlla moom. wax na melaw jullit na muy mel. ci alxuraan bari na ci lool. mais bari na ci lool ci alxuraan nag jullit yu mel. bari na ci lool. mais bari na ci alxuraan lool. fii ma wax léegi. mais fii mu wax léegi. yasalunaka anil anfaali qul il anfaalu lillahi wa rasul fattaqu llaha wa aslixu data baynikum wa atiu llaha wa rasulahu in kuntum muminina la yàlla wax in kuntum muminin condition la andi ndegam nekk ngeen di jullit yàlla nag tàmbali di faram fànce nan la jullit di mel ak ku di jullit ca moom. mu ne innamal muminuuna yéen gaañu ndegam da ngeen ci werante man yàlla mi bind liimaan xam njullit lan la ak kudib jullit ci man yàlla dëgg-dëgg alladina ida dukira allahu wajilat qulubuhum wa ida tuliyat alayhim ayatuhu zaadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluuna alladina yuqimuuna alsalata wa yunfiquuna mimma razaqnahum nu mu ko waxeeti mimma razaqnahum yunfiquuna ulaika humul muminuuna xaqan yàlla ne ñooñu ñu di jullit dëgg dëgg ci man yàlla. mais moom ñi mu cité tudd leen ci alquran ñooñu la ñu di jullit dëgg dëgg dëgg dëgg ñu ñi mu cité rek ku nekk di jullit it dañ jullit. yàlla defuloo kenn luy